musu ko am basarul basarul te dootu ko am te nit nit daal musul li Cheikh na Tidiane làq kenn du ko làq nee moo tax xut baanee ba mu taxaw boo fa taxawee sa jëm ñetti téeméeri jëm ak juróom-benn fukk lay doon nee moo tax Cheikh bés benn taalibe ñëw di diingat laaj Cheikh fekk ko ci buntu zawiya bi ni ana Cheikh Cheikh ni ko Cheikh a ngi ci mu dugg ci biir zawiya bi fekk fa cheikh fekk fa cheikh ne ko ana cheikh mu ne ko cheikh a ngi ca gannaaw ca daara ja mu dem daara ja fekk fa cheikh ni ko ana cheikh mu ne ko cheikh mu ne ca buntu zawiya ba mu del ca buntu zawiya ba nuyu cheikh ni ko ana cheikh mu ne ko dalal te teey te doylu jëmm ji kenn la kooku nag mu ne kooku nag maqaam boobu maqaam boobu boo ko amee boo ko amee fu yàlla nekk yàlla fu yàlla nekk yàlla yaa fa doon xalifa yaa fa doon xalifa moo tax mooy xalifatul xalifa yi xalifatul xayri ne xalif xalifatul xayri inni jaayil inni jaayil fil ardi fil ardi xalifatan xalifatan yaatu na yaatu na kan ne ku ne fa nga nekk fa nga ne yaa fa wuutu saboro saboro waaye xalifatul am waaye xalifatul am mooy tëbb xalifa mooy tëbb xalifa yooyu ne moo tax taalibeem bi taalibeem bi ci tiwaawan bi gaa ñuy dinga bi gaa ñuy dinga naan cheikh tëbb gi muy tëbb wali tëbb gi muy tëbb wali ndax am na ndax am na wala amul wala amul sëñ Babacar ni sëñ Babacar ni da ngeen di guddal jël da ngeen di guddal jël man taalibe cheikh man taalibe cheikh bi nga xam ne maa ngi ci nga xam ne maa ngi ci àdduna wali yoo bokkal jamono wali bu ma bokkal jamono ñoom ñëpp sama baaraamu moom laa leen di tëbbee moom laa leen di tëbbee ku ma ci jox baaraam ku ma ci jox baaraam bi doo yenn bu dee guddi bu dee guddi doo fanaan doo fanaan bu dee bëccëg doo yenn doo yenn kon cheikh ne kon cheikh ci tëbb ko ci tëbb ko lay tëbb ne te ne la arab di wax al mëdët al mëdët ne mëdët nag ñett la mëdëtul am mëdëtul am mëdëtul xaas faati ne bokk jàppoo ko te jàppoo ko di nga am loo xam ne ñëpp a ci yem ne mën a tulaab nag mooy boobu ne mën a tul xaas mooy tëbb koo xam ne boo jàngee salaatul faat benn per bi nga xam ne la ngay am la ngay am benn per ba ngay am la ngay am benn per boobu ci la Seydi Hadji Malick sukkandiku ni ku ko jàng benn yoon sa yaram aram na safara boo ko jàngee benn yoon boo yëgee ak boo yëgul boo yëgee picc boobu. am na juróom-ñaar fukki junni. am na juróom-ñaar fukki junniy bopp. am juróom-ñaar fukki junniy laaf. am juróom-ñaar fukki junniy laaf. laaf bu nekk. laaf bu nekk. am juróom-ñaar fukki junniy dunq. am juróom-ñaar fukki junniy dunq. bopp bu nekk. bopp bu nekk. am juróom-ñaar fukki junniy gémmañ. am juróom-ñaar fukki junniy gémmañ. gémmañ bu ne. gémmañ bu ne. am juróom-ñaar fukki junniy làmmañ. am juróom-ñaar fukki junniy làmmañ. làmmañ bu nekk. làmmañ bu nekk. ci seconde bu nekk. ci seconde bu nekk. ci bopp bu nekk. ci bopp bu nekk. ci picc bu ne. ci picc bu ne. sikar sikar ci waxtu woowu ci waxtu woowu juróom-ñaar fukki juróom-ñaar fukki junni salaatul fati ca fañ ko sikar salaatul fati yéen ñi tuyaab yooyu yëpp yaa ko moom moo tax nag moo tax nag lii mënoo mooy yàlla mooy yàlla mu dul toll mënoo ko bu ñu toll moo tax mu ni ala maratun ala damani maratun benn minha ci salaatul fati fidyatun fidyatun min an-naar min an-naar njot la ne njot la ci safara nee boo demee ci téere bi ki yor di rawdul muhiit محب الفاز محب الفاز ni téere tarixa bi ne yër na ci barki dem Sidi Ahmed Tidiane nee na képp ku jàng junniy lixlaas def ko addi yonent jënd nga sa kër ca àjjana moo tax waaye salaatul fàtte na moo tax Tidiane bi doyati ñu dégg ñu ne booy laasim man nga jàng salaatu ala nabi ne mu bàyyi salaatul fàtte di jàng salaatu ala nabi ne xamul lu xew ne bu ngeen xamoon li salaatul fàtte ne du ngeen ko wecci ak leen ne bu ngeen xamoon li ci wasifa du ngeen saahibiha ne boo toogee ci wasifa ne wasifa ba noppi ne yaag liir buy door a juddu yéen a yem ne moo tax ku koy sàggane daal xamoo lu xal ne sëñ Hadj Malick nee na inna al wasifat lil xura asimatun kazaaka iqlimuha fi kulli buldaani ne inna al wasifata ne lil xura ne asimatun ne dëkk boo bëgg bëgg mu am sécurité ne mu am sécurité ne fa wasifa ne dee fa wasifa caxalo boobu ne boobu nag ne sax am taalibeem ne am taalibeem buñ naan Seydi Arabi am Seydi Arabi

ziyaar ne ziyaar Sidi Arabi. ne Sidi Arabi. bi muy faatu. ne bi muy faatu. fekku fa seex. ne fekku fa seex. waaye daal néeg boobu. ne waaye daal néeg boobu. nee na. Sidi Arabi moo fa ne. Sidi Arabi. ne te Sidi Arabi. ne bis bu yàlla sàkk. dina gis yonent. ne dina gis yonent. ñaar fukki yoon. ñaar fukki yoon ak ñeent. ak ñeent. bis bi. ne bis bi. ñaar fukki waxtu la. ñaar fukki waxtu la. ak ñeent. bis bu yàlla sàkk. ne bis bu yàlla sàkk. mu gis yonent bi. ni ma janoog yéen. ni ma ñaar fukki yoon. ak ñeent. Sidi Arabi nee Sidi Arabi nee benn bis sëriñam nee sëriñam Sidi Ahmed Tidiane léeg-léeg mu toog bis nee léeg-léeg mu toog bis wala ñaari fan wala ñaari fan nee diggu si yonent bi nee Sidi Arabi xalaat ci xelam ni dafa mel ni sama sëriñ bi man maa ko gën a jige man maa ko gën a jige yonent bi nee da koo xalaat rek nee la mu xalaat ndekete xalaat ba nee Cheikh dégg na ko nee dajji buntu bi ñëw ci moom ni ko lan nga defee defal yàlla moom nga defal yàlla. bay gis yonent bi bay gis yonent bi ñaar fukki yoon ñaar fukki yoon ak ñeent ak ñeent par bis par bis mu ne xam mu ne xam di ko xool di ko xool Cheikh pañe ko Cheikh pañe ko ni ko lawlaa mahabbatu ni ko lawlaa mahabbatu fi tijaani fi tijaani maa raaytani maa raaytani xattul xattul bu fekkoon ne bu fekkoon daal sa cofeel lu du sa cofeel di nga sopp di nga sopp Sidi Ahmed Tijaani di nga dund di nga dund ba dee ba dee doo ma gis doo ma gis benn yoon benn yoon loolu loolu yonent bi ko wax nga xalaat waaye xalaat bi nga xalaat sama martaba sama martaba moo la baal du la baal du la baal moo tax bi muy dee non moo tax bi muy dee dañ koo boom yàlla yàlla dara safu dara safu kuy gis yonent ne kuy gis yonent ñaar fukki yoon ñaar fukki yoon ak ñeent ak ñeent ba noppi ñu boom ba noppi ñu boom la ne bañ ko boomee jullee ko denc ko denc ko cheikh ne cheikh ñu woo ko ñu woo ko ne ko sa taalibe faatu na jullee nañ ko denc nañ ko nee seex ñëw tiim bàmmeel ji jël ñaar loxo yi teg ci bàmmeel bi jëmu jigéen ba fi mu toll ni kenn sunu maa ci am firnde nee maa ci am firnde waxuma ko nee waxuma ko ngir ngis tal ngir ngis tal taxaddusan taxasudan bi nicmatillahi bi nicmatillahi sikrun sikrun wa tarkuha wa tarkuha kufrun kufrun nee yàlla defal la xéwal nga wax ko ak yàlla ne maa fa dem ca raw doom siyaar ko di génn barrière bi lonk sama mbubb mu xonteeku ma dem ñibbi ca suba ga ma dellu siwaat ci mambel bi ziar ko di génn di génn sol beneen mbubb sol beneen mbubb barrière bi lonkaan mbubb bi mu xotteeku ma génn ñetteel fan ba ma ñëw ziar di dem barrière bi lonkaan mbubb bi mu xotteeku sëtëm téema ni ma yow góor gi nee nga laal ko góor gi nee nga laal ko boobu xaw ma daa génn. mooy boobu xaw ma daa génn. billaahi billaahi lazi lazi laa huwa sama loxo ma yor sama loxo. teg ci jëmm ji teg ci jëmm ji. laal ko laal ko wax naa ko ñii. wax naa ko ñii ba ma ñëwee. ba ma ñëwee dama leen di. ñetti laal laa ko laal ñetti laal laa ko laal. laal bu njëkk bi dama ko laal. dama ko laal siyaar ko. laalu ñaareel laalu ñaareel. dama ko laal dama ko laal. ni yàlla ni yàlla sama loxo. sama loxo teg naa ko ci kawam teg naa ko ci kawam. tegal ko tegal ko ku jàpp ci sëñ Malick ku jàpp ci sëñ Malick. siyaaral naa la laalum ñetteel bi ma laal ko ni yàlla maa ngi ñaan mboolem taalibe ngir bañ cewtaan rek jibril boo bëggee gis tànku jibril tànku jibril tànku jibril mi nga marqué cerew doom jibril